asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi maa ngi leen di nuyu ci turu ak ndigalul sëriñ bi toog di sëriñ Abbas moom mi nga xam ne mooy sunu borom Daaru Muxti maam Cerno di xalifatu Cheikh Ibrahim borom Daaru Muxti mu sant ma ma yëkkati kàddu yi sof ko ci kàddu yi nga xam ne moom la sëriñ Muntaqa mi nga xam ne moo di xalifatul muridiya xalifatu Cheikhul Xadim yëkkati woon ci fan yi ngir yëg-yëg bu mu am moom sëriñ mun Mountakha ci kàddu yi nga xam ne moom la sëriñ Maam Thierno moom sëriñ Cheikh Awa Balla yëkkati woon ci bisu korite ga sëriñ bi yëkkati kàddu yi sof ko ci kàddu yi sëriñ Mountakha yooye sëriñ bi wane bu baax ak yëgam ci kàddu yi nga xam ne sëriñ maam Thierno yëkkati na ko jëme ko ci li nga xam ne mooy melakaanu ab taalibe ni war a mel nañ war a jàppe sëriñ bi ni ñu war a àndeek sëriñ bi ak fi nga xam ne fi la jamono toll ak ñooñ sëriñ bi nu ñu war a mel ak jamono mu nekk loo xam ne sëriñ bii di sëriñ Abbas tey ci tey di borom Daarul Muxti su déggee kaddu yooyu ci sëriñ maam na bi nga xam ne kenn la ci njabootu borom daarul moxti du man lu dul rafetlu ko xelam dellu bu baax ci borom daarul moxti am na yaari mbir yoo xam ne mm, am na ko ci sëriñ Touba bi sëriñ Touba nekkee njaareem benn bi sëriñ Touba dafa wax ne barab bi day mbir xew na fi moo xam ne li fi cerno nekkul moo tax waaye bu fi cerno nekkoon li xew du xew léeg-léeg cerno la koy wooye bu dee bind dana di wax ibrahim ibrahim ibnu walidi ibrahim al sadiq ci mbind mi lu ci la def nag waaye bu dee waxtaan ak keneen jëmee ci moom bari na ci loo xam ne boo demee neel cerno lay faral di wax ndax sëriñ bi dafa mën a jàngale beneen bi mooy mbir xew borom daarul muuti ndég ba xew-xew ba jàll mu ñëw nett lu ko nam ca doxale moom foofee ci njaareem sëriñ bi ne ko bu ñëpp meloon na yow de bu ëllëgee duma ma sonn yaar yooyu nag koo xam ne kooke mooy sa maam jàpp naa ne sëriñ maam Cerno bu gisee loo xam ne jàpp na ne nii lañ ci war a doxe ci wetu sëriñ bi ak ci yoonu sëriñ bi loola sëriñ bi fi nekkal borom daarul muuti rafetlu ko rek lay man mbir xew na moo xam ne bu fi Cerno nekkoon du xew lii nga xam ne moom nga doxale ci mbir mi it bu ñëpp meloon na yow su ëllëgee du ma sonn kon leen war a gën a góorgóorloo bokk na ci fexe ba sunu kilifa la koy sonal du bàyyikoo ci nun loolu moo tax sëriñ bi yëkkati kàddoom yi sof ko ci kàddu sëriñ Muntaxa yi loolee sëriñ Muntaxa wax ne sama tawfiix la tawfiix nag mooy wakk bu dajee geesu kon moom itam jànge nañ ci moom ne nit ku amug yëg la ku amug taxawaay la ci li nga xam ne moom la ko sëriñ bi bàyyee muy yoon wi ak ñooñ yoon wi ak barabu boppam bi sëriñ bii nag di sëriñ a baas dafa bëgg mbooleem fu njabootug borom daaru Muxti nekk tàmbalee ko ci biir tuubaa gi nga xam ne mooy barab bu mag bi te aju ci borom daaru Muxti ak noo ci ajoo ak barabi yi borom daaru moxti yëpp barabu boppam bi ak ba yëpp barab boo xam ne njabootug borom daaru moxti ñoo fa nekk la mu bëgg mooy waxtu wu ñu déggee kàdduk sëriñ mu Muntaqa la mu santaane ak na mu ko bëggee nañ ko doxalee noonee te yaakaar nañ ne incha allah ni ñu dégg ni mu waxe du ñàkk mu yëkkati ay dogal wala aw doxin boo xam ne noonu lay bëggee ku ni doxale waaye rek bu du woon loola it waxtu wu ne ndigalam moom la ñu déglu moom la ñuy topp keroog bi nga xamee ne ñu ngi dajale addiya yi ci kër borom Daaru Muxti mu teew moom sëriñ bi ñuy neggandiku njabootuk sëriñ Mouhamadou Hawa la ci njiitul sëriñ Xaadim docteur ba ñu ñëwee ba mu leen santee gërëm leen ci taxawaay bi ak ni ñu dikkee njaboot gi ànd da dugal baat boo xam ne dikk na tey daa waxoon ne lii ngeen def de lu baax la nay wéy waaye nag daaru na taxaw ba waxtu wu nekk lu tuubaa bëgg rek daaru mooti taxaw ca defe ko nam ko bëggee bu nee tuubaa nag mooy ki fi nekkal sëriñ tuuba loole la bëgg ñu dund ko waxtu wu ne ñu di ko ñu di ko di ko ñu di ko dund mu ne nag eh, doomu aadama ji yàlla dina ko xéewale loo xam ne ak càgganteem mooy tax xéewal yooyee tuxu sunu boroom di ko misaal di wax ne am na barab boo xam ne dañ fa dama ko joxoon xéewal yu doy sëkk wet gu nekk xéewal yi di walwal yi di ñëw waaye ña nga xam ne ñoom laa ko teg ci seeni loxo ñoom dañoo xamul lu ñu yor lu mu wet di samay xéewal xéewal yooyee nga xam ne moom laa leen defaloon ma mujj mosal leen nag la nga xam ne mooy payug la ñu jëf la ñu jëf moom mooy lan waxtu wu nekk mënatuñoo mënatuñoo mar ba màndi mënatuñoo xiif ba regg mënatuñoo amit li ñu tudde sécurité fa azaqa law libaasal joxe wal fi bi ma kaanu yasnawoon la ñu jëf la leen faye loolee barab boobee lépp daan fa ñëw ci xéewal te lenn lu ci nekk ñu ñu ñu ñëf ca dëkkutoon daan leen ca ñee loole moo mat a moytu fexe ba xéewal yi la yàlla defal ak ngëneel mu la defal mu delluwaat ci loole moo xam ne bi makaana yasnaun nga xam ne yaa ko jëfal sa bopp bu doon mbubb yaa ko ñëw sol ko bu doonu dàll yaa ko tëgg sol ko jëf ju nekk noonu lay mel mu bëgg nag lii nga xam ne moom la sunu borom defal booloo nekk sëriñ tuubaa kenn ku ne mu wutal lu bunt fii ci Darou Mouhty borom Darou Mouhty di sunu bunt muy loo xam ne kenn mënu ko wutal sa bopp yàllaa koy baaxee nit ndax képp ku yàlla booleek sëriñ bi nanga xam ne kat boole na laag yiwu àdduna boole na laag yiwu alaaxira wan na la itam ni nga xam ne ni nga war a mën a dunde ci sa biiri bokk dundin wu rafet wan na la itam ni nga xam ne moom nga war a dunde sa bokki mm, moroomi jullit wan na la itam ni nga xam ne moom nga war a dundi ci say bokki dëkkandoo yëpp képp ku topp ci yoonu sëriñ bi topp ay ndigalam doo jote kenn dara kon nag sëriñ bi ñu delloo ko njukkal ci kaw loo xam ne suñu njariñul bopp lay doon tey ak ëllëg loolu dafa am sëriñ bi nag loolu da koo tegoon fu fu fu fu wóor ndax diine dañ koy wax ci làmmiñ fas ko ci xol jëf ko ci ay cër bu loola amee nag la ca des mooy ihsaan bi moo moo ca topp ihsaan nag alxuraan dafa xam ne in ahsantum ahsantum li anfusikum su fekkee ne def ngeen ihsaan seen bopp ngeen ko defal defalu leen ko kenn loo jooju nag xam ne mën nañ koo firee ci jamono ji ñu toll mu yomb dégg moo di at tasawuf mooy yoonu sëriñ bi ni ko sëriñ bi doon dunde loolu nag la cay baax mooy li sëriñ bi wax ne da di fuglu seen boroom ndax bu ngeen ko gisitut mi ngi leen di gis mooy tax sa ihsaan mën a mat in lam takunu qad raaytumuhu faxwa yaral kulla faraaqibuhu waxtu wane ngay fuglu sa boroom ba tax sa jëf ji séddoo ci ma sàmb séddoo ci ma demb moom nga ciy xool loolu la sëriñ bi doon dund nekk ko ci biir réew mi ba ñu sonal ko génne ko mu nekk ca loole ba dellu siwaat ñu di ko sonal mu nekk ca loole lépp mi ngi ci ihsaanam jooju ihsaan jooju nag la ci gën a te mat a bàyyi xel mooy faraaqi boobu sëriñ bi sant nu nan ko fuglu fuglu googu kat am na loo xam ne tey ji nu toog di wax boo demee ci tafsirul jalale ni mën nga caa gis lu ko wane moo di mm, xeet woowu nga xam ne moom nga déggoon ñu waa aad sunu borom mm, alak leen ci ngelaw loo xam ne ay buuraange yoo xam ne bàyyiwu fa dara boo demee ci tafsirul Jalaalayni da ngay gis ñu ne daf ñoom weeru sawaal xamoon nañ ko naka jekk ndax ci njëkk wax arab lañu bokk dañuy wax ne ci weeru sawaal bi dafa nekkoon benn paru alarba alarba joojee ca la ngelaw la tàmbali moo tax sabaa layaalin wa samaaniyata ayaamin la moo di dafa tàmbali alarba dem ba ca talaata ja ca guddi ëllëg sa di àllarba di juróom-ñetti fan ñetteelu fan waaye nag ba jant bi sooy ca la nattu ba jeex loolee kon ka ko defoon nag moom mi ngi fi ba tey te dafa yor dafa yor yar yaram boo xam ne képp ku jàdd faaw mu dóor la ko yar boobee nag yàlla na ci la musal te yar bu doy doy waar la mooy sawta azab yaru mbugal la yor boo xam ne ku ko jàdd fa mu ko fa nga war a jaar rek yar baa ngi tege mooy sawta azab sawta azab jooju nag la ca topp moo tax sëriñ bi noonu faraaxi buuxu ginnaaw yar ba moo di ina rabbaka la bil mirsaad kon faraaxi buuxu jooju moom la nu sëriñ bi di e, wattuloo moom la bëgg ina rabbaka la bil ak sawta xasab boobu loola la la la tekki kon bu nu yéyee ci ndigal sëriñ bi tënku ci ay ndigalam e, li nu sunu kilifa yi digal ñu di ko jëf li li ñu taree ñu di ko ñu di ko bàyyi te bañ faa jege di je namputal sunu njaboot te xam ne lii la sëriñ bi bëgg nii la sëriñ bi bëggee nii la war andeek moom jàmm rek mooy xew te dara du du du du du sikk ndax sëriñ bi sunu borom may na ko may goo xam ne ku fekkee ku wuute yaay wax kay waaye moom li koy sunu borom may du dellu ginnaaw mukk kon nag fexe ba bokk ci ñi nga xam ne euh, dañ koy dañ dañ ciy dund di ci jariñu di ko rafetal ànd kook moom loola rek mooy mooy li am solo kon kaddu yi moo taxoon sëriñ bi eh, wax ne nañu leen woo ngeen ñëw ndax yoon wi wenn la doxeen wi wenn la fi sëriñ Muntaxa yëkkatee tàggam tànkam mu teg fa tànkam mooy ci yéen la ñu déggee waxi sëriñ Muntaxa mu ne na ngeen ñëw su ko defee ñu jaaralewaat ko ci yéen mu xam ne sof na ay kàddoom ci kàdduy sëriñ Muntaxa ci lépp loo xam ne luy li yéwénal ak a defar bokk gi la ak lépp loo xam ne day wane liggéeyu sëriñ bi ak ak ak euh, warmaal sëriñ bi ak ñooñ sëriñ bi loolee borom Daaru ti waxtu wu nekk ak ku ko fi nekkal ca loolu la nekk moom la fi fekkoon ca loolu lay nekk di xamal itam sëriñ Muntaxa ne ko waxtu wu nekk rek lu mu nekk na xam ne Daaru Muxti moom ma nga ca loola te loolu moom muy tey muy ëllëg dara mënu cee mënu koo mënu koo delloo ginnaaw di fàttaliwaatam ne sëriñ maam Cerno kaddu ya mu yëkkati jëme ko ci lu lu lu lu soxal yoon wi loola dañ koy xoolaat ci cosaanu lii mu wax rek ci borom daarul muuti diggam ak sëriñ bi lépp lu ko mos a itteel lu nekk lépp lu ko mos a ñor lu nekk kenn ku ne xam na ni borom daarul muuti moom la ko daan moom la ko daan defloo kon nag loola ku ca bokk ku nekk boo taxawee mel ne sentinelle nga xam da nga mel ne ay soldat rek ay gardien yoo xam ne ngay taxaw di xool di sàmmale ki fi Serigne Touba bàyyi di sàmmale ki fi borom Daaru Muxti bàyyi duñ mën lu may sant ko ca gërëm ko kon nag lii mooy kaddu yi nga xam ne moom la Serigne Abbas bëgg sof ci kaddu sëriñ Serigne Mountakha di ñaan yàlla sunu borom moom mi nga xam ne dara tëwu ko mu yàggal ko ci sunu kanam may ko kattan ak wér ci liggéey bi mu liggéeyal borom daaru Muxti ci toolu Serigne Touba bi te loolu itam sunu borom defal ko Serigne Mountakha ak képp koo xam ne fas nga yéenee teg sa tànk fa ñu teg seen tànk seen yéene ji ñu am ci yoonu Serigne mi nga ànd kook ñoom sunu borom dugal la ci biir loole te loolu mooy li nga xam ne dara mënu koo dara mënu koo gën ci dunduk doomu aadama ji muy tey ak ëllëg ndax muy xewaluk tey ak ëllëg kon ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di wax alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. مالك الملك يا من جل الخلق